nouvelle bu neex ñëw ci askanu suñu gaal ñu jëmale ko ci ki nga xam ne mooy le roi du mbalax l' star planétaire suñ ko déggee xel yëpp daal di dem ci ki nga xam ne mooy Youssou Ndour Youssou Ndour nekk PDG bi nga xam ne mooy groupe Futur Média bu ñu cité dañ ciy daal di wax TFM RFM IGFM ak li nga xam ni nag mooy rajo King FM batax na. li nga xam ne mooy magasin bu mag boobu nekk foofu ca diwaanu Amérique ñoom nag daal di génne ñu gën euh, tuxam seen tur ci Rolling Stone ñu créé woon ko depuis 1967 euh, foofu ci San Francisco Youssou Ndour nag jamono ji bokk ci ñi nga xam ne dañ ci daal di gën a fees moom séné doomi Sénégal boobu ñu daal di koy gis ci liste bu nga xam ne deux cent chanteurs yi ak deux cent chanteuses yi nga xam ne ñoom ñoo gën a mag ci àdduna bi dañ leen ci gën ci ràññaliku lañ ciy daal di tabb ci liste boobu Youssou Ndour bokk ci ñi nga xam ne mu nga ci 69e place bi daa di raw nag ñoo xam itim ay kàngam lañ ak ndaanaan ci seen wàll moo xam jëm si yàlla bom Marley ak ki nga xam ne mooy rek Michael Jackson ñoom ñi nga xam ne ñu ngi occupé wu place bi nga toll ci 89 ak ki nga xam ne quatre autant pour moi ak euh, quatre vingt dix euh, place bi ñoom moom lañ jël Youssou Ndour nag jël li nga xam ne moi, soixante e euh, place bi gannaaw soixante e place bi yaakaar ne bu wax li nga médaille la te Ndour am dinañ ci lim yu buñ meilleur artiste africain en 1996 et lui bi nga xamni tamit am africain

baat ba macha allah talent baa ngi fi xalaat maa ngi fi bind maa ngi fi lu fi bind saa su nekk taarix lay doon te du mus a jeex du jug ci nag di ñu won boppam saa su nekk ndaxte bu ñu déggee ñi nga xam ne rek ñoo yor magasin boobu ñu ngi xamle ne ne question de voix kese mais te li ko li wuntu loolu noonu ba tax ñu tabb leen ci dafa daal di bëri. critique nag bi nga xam ne jot na ko indi mooy ki nga xam ne Céline Dion a Akon mi nga xam tamit doomi Sénégal la da nekk foofu ca États-Unis ñoom gisuñu leen ci liste ba tax na ñi nga xam ne dañ leen di béggee bu baax a baax ñoom nag am nañ ci yenn ñaxtu yoo xam ne ñu ngi ko cay daal di yëkkati waaye luñ ci mënti dégg Sénégal daal di nay siggeeti ci àdduna ànd ceeg musique li ñuy wax musique sans frontière Youssou Ndour wan nañu ko bu baax a baax ndax jamono ji àdduna wërngal képp kenn dootul wax te keen du tudd turam moom le roi du mbalax Youssou Ndour Youssou Ndour bokk ci ñi nga xam ne itim nag dañuy décider ci réew mi ndax bu ñu waxee wàllum politique da cee daal di am wàll bu baax a baax Youssou Ndour l'homme du premier janvier mun nañ ko ko woowee ndaxte grand bal ku ne le premier janvier at bu nekk mu daal di dell ba bi ci mujj ci 2023 bi dafa fees dell ba nga xam ne tëggaat sax da ko ci daal di